sant gan gi gan gi muy Pape Demba bi tey ah nekk kilifa kilifa gi nga xamante ni nag moom lañ doon xaar ñu ko doon xaar mooy ñan waaye mbaa dafa di jaay si li ñu ko doon xaaree mooy gannaaw bi ko masawoo ba pare xam nga moom dañ ko war a masawoo comme ni ñuy masawoo waa mbaa dafa di jaay ndax dégâts yi gën a mag si lakk gi Sénélec moo ko gën a subir Sénélec subir na ay dégâts fii si marché bi parce que lépp lu mu fi amoon si ay bagages lakk nañ te marché bi nekkul mbaar mu ndaw.

lépp daanaka boo fi duggee doo gis sax jant daawoo fi gis jant ndax lumière rek la ñuy ut li ñuy utiliser suba ak ngoon te loolu gis nañ ko ak li ñu ñàkk si ay problème mu facture parce que jamono yee ñu génn am na ñu fi ñëw di relever ñu dugg see ñu jaar ak foofu mun a nax saay ñoo leen fii de compteur waxatuma la compteur waxuma la place moo fa néewatul kon subir nañ dégâts yu méttee méttee métti doléance boobu nag ñun dañoo bëgg a commencer war reprendre suñuy activité ñi ngi koy def ndànk-ndànk bu mbaar mi jógee waaye liñ bëgg mu gën a gaaw te gën a jàmp mooy bu ñu ne reprendre suñuy activité te amuñ bu ñu la joxee place nga daaj ba mu jekk boo amul courant nekk ab téer doo am foo liggéeyee yaakaar naa ne fii ku fi ñëw guddi gi ni muy lëndëmee danga gis ne fii courant amatu fi yaakaar naa ne gis nañ ko gardien yi fiy nekk daanaka loolu ñu ngi ñu koy jàmbat eh, amul benn lumière buy tàkk ci mbaar mi nga xamante ni dafa lëndëm trouche courant jeex na fi tàkk kon suñ daam suñ suñ doléance yooyu ñu ngi la koy ñaan lépp su mën mu gën a gaaw nga xamante ni semaine prochaine bëgg nañu reprendre suñuy activité gannaaw bi ñu jubloo si wàllu mbaar mi ñu courant bi ñëw place bu nekk ñu jéem koo defal compteur su ngeen amee réussite suñu réussite la ñun nag yéen lañ xam yéen lañ dëkk yéen ngeen bàyyi ñu xel bu baax a baax ñu leen sant bu baax leen gërëm ñu fi ñëwee tey gis fi lii dafa jaadu ñu ñëw masaw leen di gërëm nag di sant ñepp ñi nga xamantene ni jitu nañ ñu fi di ko commencé sur le avec le maire Maria Massar délégué bi wax na ma légui lim fi def bu mbir mi amé di gërëm aussi tous les responsables yi nga xamné ñëw nañ fi indi sen contribution ñu won wax mënuñu woon ndaxte fi ngeen tollu yaakaar naa ne jëf rek moom ngeen soxla waaye lu fi wax lu fi nit mun a wax gënu leen ko xam te gënu leen ko gën a mun a wax it di wax rek ne sécurité marché yi dafa nekk préoccupation préoccupation bi nag mooy lan mooy que ni souvent marché yi ni ñuy màggee daf ñuy un programme de sécurisation des marchés sur financement de la Banque mondiale Je rassurer que que marché et que sécurisation dina tax ñu installation aux normes Nous avons également un système de comptage système de comptage kon loolu dama bëggoon ñëw rek rassurer leen mais nag programme yooyu suñ koy def dañuy obligé ñu def ko en coordination avec les autorités locales loolu du Pape Demba bi tey crème moo ñëw mais directeur général bi moo ñëw pour rassurer leen ci wàllu boobu wax leen ne programme sécurisation marché yi commencé nañ ko Dakar dinañ ko yëggali te Kaolack bokk na ci région yi nga xamante ne ni moom lañ tànnoon léegi nag di leen massaw di saluer aussi sen ngëm parce que li ma fi dégg ni ko amul ngëm-ngëm do ko mun lima wax li ma fi gis ni ko amul ngëm-ngëm do mun am comportement yu mel non kon bu yalla defee ngeen yexi fofu nak da fay jaadu ñun ñi nga xam ne doomu kawlak lañ ñun ñi nga kawlak defal nañu lepp ñu ñëw si sen wet massawu wulen wan len ni li ñun ak yeen ñoko ko wan ne aussi nattu doomu aadama lay dal waaye nag boo gëmee sabablu yàlla jox la lu ëpp loolu kon boog ñu ngi leen di encourager di leen gërëm di leen sant di wax ne nag indi nañ suñu petite contribution boo xam ne bu soobee yàlla dinañ ko teg ci loxo président délégué yi comme ça mu jottali ko ñëpp ñu mu war doon bu ñu sañoon tey képp ku fi am naxar ñu ñëw faj ko waaye comme mënaguñ régler problème yépp comme ñu régler problème ku nekk ñu jël lu ñu am tek ko ci loxo ko xamante ni dina ko yeggale ci ñëpp en tout cas xam leen ne ñu ngi fii inshallah ak yéen bokk ak yéen Kaolack ñu ngi fii inshallah ak yéen fii ci Kaolack ñu ngi fii di leen seedeel ne lépp si seen problème suñu problème la te lépp lu ngeen yaakaar ne xëj na mën nañ ko def ngir marché Kaolack ñu ngi ci seen wet pare jàppale leen di ñaan yàlla lii am fi yàlla na fi yem